voilà mes téléspectateurs ginnaaw bi ñuy demee régie dañuy daal di si waat si plateau bi comme li ma leen ko waxee woon sànq rek fas yéene dawal dalal ki nga xam ne c'est notre PDG monsieur Diack euh, li muy organisé chaque année mu troisième édition bébé de l'année fii ci à Rufisque donc muy ni toog moom laa fas yéene dalal ñu fas yéene waxtaane programme bi comment ça va se passer les parrains et tout ça voilà donc restez toujours scotchés bu leen dara bu leen rek ci leen ngeen bien bienvenue dalal la si am mbégte dalal la si plateau Café Show Plus. merci beaucoup soxna Diatou. maa leen nuyu yéen aussi di leen ziare di leen tatagal. di rafetlu aussi seen liggéey bu bu xarañ bi ngeen di def si dëkk bi. ak seen émission bi nga xam ne seen suivi partout à travers le monde. di leen wax ni. tey dama ñëw dal ak yéen pas en mhm. tant que comme ni ngeen may tuddee te bëgguma ko te bëgguma ko <laughs> mais ñëw comme un acteur de mhm. développement boo xam ni dafa am ay activités yu may bëgg di def si dëkk bi donc voilà. Mhm. voilà merci beaucoup comme nee na koy bañ monsieur Diack Ndanane kon baa ñu wax bañ wax PDG monsieur Diack Ndanane PDG de Kër Ndanane TV voilà mu ñëw toog fii tey nee naa leen ñu fas yéene waxtaanee programme am bi donc monsieur Diack tey dañuy ñëwaat ci programme bi defoon nga première édition def deuxième édition donc ñu nekk ci troisième édition bi programme bi naka nga koy préparé instant bii nii. waaw jot programme bi comme d'habitude rek. parce que ñu ngi suñu troisième édition ren. Mhm. bon j'ai essayé une première édition à l'hôpital Youssou Mbargane bon yàlla def si mu def si xéwal mu réussir. bon daaw def nañ deuxième édition. on a yi deux hôpitaux. hôpital Youssou Mbargane ak hôpital Géej. et c' était trop difficile nag parce que heure heure bi nit ñi di juddu boo bëggee toog fii xaar ñu defar nit ñi et bon donc ren on a décidé de lépp lu ñu am dañuy consacrer benn hôpital que ça soit les districts sanitaires et autres. Mm-hmm. donc ren amul fu ñu ciblé. d' accord. lépp lu nekk si tëngéej. Mhm. foo xam nit mën na fa amee doom fu ñu ñi ko woo rek donc kooku fa lañ jëm kooku change am lay doon. d' ah, donc vous allez attendre que ñu woo leen fii. Mhm. fii am na euh, ay naissance genre si décembre bi fin bi du moins. Mhm. su ko defee nga déplacé wu dem donc booy déplacé wu dem tamit comment ça se passe parce que comme l' année passée gisoon nañ macha allah teraloon nga bébé yi et tout ça c' est pareil am yeneen yoo ci yokkaat. waaw xam nga àdduna moom lépp looy def dafay da ngay soxla amélioration. Mm-hmm. amélioration mooy boo jege à un point A. da nga bëgg dem un point B. Mm-hmm. par exemple lii bi ma ko initié. Mm-hmm. dama jaar hôpital Youssou Mbargane nii par hasard rek. ma laaj ma gis ñu yenn ñoo xam ne dañ nekk si ay conditions wala dara après j'ai appelé mon ami et que je de passage. ma a Seck. ma ni ko mais fii kenn mas na fi def bébé de l'année wala yooyu mun ma bon bu amee boo kii quoi xam naa ni rappelé ma ko. d'accord. ma ne ko est-ce que yéen mën ngeen ma permettre dañ def ko fi. Mm-hmm. non dama ko ni déwén. naa ko mm-hmm. bëgg def. ñu mm-hmm. ma d'accord xam nga les années passent vite. année bi ma ñëw mu présenté ma le directeur de l'hôpital monsieur Ndiaye. ñu waxtaan si mun mu sa présenté ma sa famille tout mun ko y pas problème donc jour boobu. comme c'était notre première édition y avait un peu de faille parce que dañuy jógee kuunu nit ñi dañuy dem si télé bi ay minutes et fayoon ba lañ ma wooyee ni ma maam Kumba moo fa nekkoon. Mm. présentatrice bi ni ma am na ko fi am doom. donc noonu lañ ñëwee fii jël bagage yi dem. demaat donc am na benn expérience boo xam ni acquérir nañ ko si. deuxième année bi. Mm-hmm. bon vingt deux heures ñun ñëpp fi la ñu fekk ñu reer teg suñu boisson toog di xaar. donc am à minuit ñu woo ñu ni ñu hôpital Géej am na ko fa am doom. ñu dem ñu dem fa. Mm-hmm. bi ñu dem si yoon bi la ñoo hôpital Youssou Mbargane am na ko fa am doom. Mm. donc l' essentiel l' essentiel était ñu xam ne am na ko fi am doom c' est le bébé tel ñu préparé ko mm-hmm. après ñu jóge fii defaat convoi ñoom bàyyi moo jàpp si pare vraiment indi oto yi on a fait boo beau mm-hmm. beau ñu dem fa teral leen et tout donc ren nag dañu bëgg aussi chaque année rek ñu marqué un pas de plus. Mmh. parce que loolu mooy développement aussi quoi voilà. merci mmh. beaucoup monsieur Diack Ndanane voilà mu nekk loo xamante ne nii c'est à saluer ndaxte bëri na ñoo xamante nii ñu ngi ce sont des habitants de Rufisque ñoo xamante ne nii mën nañ ko def mais donc yow yaa jël initiative boobu donc yow qu'est-ce qui vous a motivé parce que nit bu demee bay def dara y quelque chose boo xamante ne vous a vous à ce que nga ni xaaral lii mu fas yéene koo def bi Rufisque chaque fois ma di ko waaw non xam nga boo boo juddoo si dëkk. nga yaroo fi màggee fi. li El Hadj Saaxo di wax kenn ku ne adduna ciment la kenn ku ne war nga mën a jël sa empreinte nga marqué ko. dëgg la minimum que sa am-am. du alal parce que mhm. du du xaalis mooy joxe xol mooy joxe. dëgg la du dëgg. Mhm. te bu joxe doon tax a ñàkk kon ku watu doo sëqat. c'est vrai d'accord. Mhm. donc si noonu laa toog xol ban moyen la ñu mën a def après gis ñenn tamit bu ñu demee bu ñu nekkee extérieur dañuy gis. ñoo xam ne di ñoom ñoo tabax hôpitaux yi seen dëkk gouvernement bi tabaxuñ ko ñoom ñoo ko tabax ñoo ko équipé te ay ay immigré bon kenn pourquoi am ñu ne kenn ku ne mhm. euh, si domaine bi nga nekk mhm. ñu jéem a xool mi kenn jàpp si li kenn jàpp si loolu moom mooy doxal dëkk mu dem après man si la si laa amee inspiration loolu mhm. mu ni naa naa ko essayé ma c'est que vraiment euh, bi ma la la première année avec mais propres moyens la woon macha allah bon deuxième année bi du ma ko defee sax dafa am ñu ma woo ni ma lan moo tax yu mel ni bu amee am na ñuy ay jullit yu bëgg def ngir yàlla mais da nga leen si boole def leen ay pare ñoom ñu ñëw bi mu ñëwee tamit vraiment mm-hmm. gars yi jàpp ci bu baax a baax a baax a baax parce que on avait des cadeaux euh, ma dolli na si benn anecdote jour 31 décembre bi à 15 heures mm-hmm. dafa am benn femme bu dëkk jokkul fii dafa am doom ñetti doom après ñi woo ma ni ma de jàpp il faut kii ngeen wut lu ngeen ko may may ko ñu ne ko d'accord donc on va xool ni ñuy de voir ni def bagage. à 17 ñu woon ñu ni femme bi dafa décédé bàyyi fi ñetti doom yi. Oh. si même jour bi. donc euh, des fois euh, il a fallu ñu jël affaire yi def ko ñetti xaaj. Oh. yóbbu hôpital géej benn yóbbu fële benn après ñu jàpp jour dem seeti. Euh, bébé bi tamit du aw renforcer waat am li ñu am suñuy moyen de bord dem yóbbu ko. waaw. voilà mi ngi noonu mu nekk lu lu am am solo oo ndaxte nee naa bu fekkee da ngay def dara rek des fois nga jël sa doole bopp def ko ci dina des fois dina metti mais ko comme defoon nga ko première deuxième troisième mm-hmm. mais j'ai vu que si troisième édition bi dama gis y a beaucoup de mm-hmm. li tax pourquoi vous avez choisi ces personnes là dañ leen def leen ay parrain waaw euh, personnes yi boo boo seetee dama maintenir ñi si nekkoon mm-hmm. ñi fi nekkoon daaw presque ñoo fi nekk moo si doolee kenn laa dolli mhm. ren sax dem naa ba ni damay seetaat yeneen bonne volonté parce que kenn ko ne bëgg nga si dugal sa loxo léegi foofu la commencé toll mhm. mais dafa am euh, des fois logique fu mu lay yóbbu mhm. euh, suñu doyen monsieur Waly Cissé que je salue de passage moom mooy doyen télé bi dama wax ni ma nit boo ko defee panel ren bu déwénee nga teggi ko moom mën na jàpp ne lam la joxoon nga xeeb moo tax nga dindi ko donc j' étais obligé ma reconduiraat la ñoom ñëpp. ñu ñu nekkaat parrain yi. nga mais dolli si ñeneen. d'accord te ku may def parrain ren déwén ren laa la koy wax. Hmm, donc nekk loo xamante ni lu kii la c' est le symbole. xool ñi nga xam dañu bëgg ku mel ne góor gi wàddu yi ñi nga xam dañu bëgg tëngéej. Hmm. xam nga bu doon pour xaalis la damay xool y' a beaucoup de gens friqués fii damay xool ñi nga xam ne bëgg nañ dimbali nit ñi. Hmm. ñu def leen ko bu ñu amee dix mille sax mm-hmm. moo ma gënal borom cent mille ba ngay dem di ko seeti ji parce que xaalis nga soxla mm-hmm. parce que man mi nga engagé sama bopp mën naa ko mën naa def mettre les moyens mën naa ko def voilà donc da leen si boole ñoom pour ñu mën si am yàlla mm-hmm. bon parce que bëgg nañ ko tamit ñoom ñu lay gis tamit ñu lay estimer bëgg la jàppale donc

man dégg naa man si dëkk bi laa dëkk fi laa juddoo fi laa yaroo. Mhm. je pèse mhm. fi nekk ay maire ñi gënuñu ma gën a mën a nekk maire fii dëkk mais da def ay action daaw dama ñëw école bi j'ai mhm. donné bi fi laa jàngee primaire. mais après dañ lay dégg di laaj kii lan la bëgg si dëkk bi. su ma demee ba am ay intention politique dama koy manifester dama koy wane. parce que si dëkk bi fii laa juddoo hôpital géej laa juddoo ñu ngi leen dem a gendal. donc fi laa bokk. mais c'est pas pour des intentions politiques. dama koy def te yàlla tax parce que fi laa juddoo dama juddoo aussi fekk sama yaay di def lu baax di dimbali ay nit. ma ma jël voix boobu noonu te ku ma lu ma si defal waaye doo keneen du ko xam. kenn du ko xam waaw. mais intention politique keneen ki am na ku ma woo keroog laaj ma. <laughs> ma monsieur Diaw dama doon laaj tu as des intentions politiques ma ne pour le moment non. Mm, pour le moment. Mm-hmm. voilà li tax ma laaj la ko pour nga leeral li nga def sax dafa am solo nga leeral ko parce que pas mal de personnes comme ni nga ko waxee ñuy demander cette même question moo tax ma ñëwoon comme dama <laughs> la ko laaj nga leeral leen ko ne leen même bu fekkee da politique aussi nañ la xaar yaa ngi ci yoon boo nekkee ci yoon bi dañuy ko fésal ñoom ñëpp dinañ ko xam mais bon kuy def du baax dañ koy encourager mm-hmm. ndax euh, boo nekkee personne boo xamante nii rek social la ndax c'est du social nga ñëw créer bébé la bébé la aussi c'est pas quelque chose boo xam ne dafa yomb mm. parce que ça mm. suscite beaucoup de moyens ndaxte comme première édition bi nee nga yow kese yaa ko defoon yàlla dimbali la ci nga réussir wala na ne da ko def te yàlla rek tax mm. nga ñëwaat defaat ko te yàlla rek tax pourtant sa ay ñoo ci ñoo ci boole des parents et tout ça jàpp loolu moom c'est à féliciter parce que nit buy def lu baax da man moom contribution rek laay def ndax moom comme ni ñu koy waxee niñ ko waxee sànq buy def day def rek te yàlla suñu borom a tax lu ko si fekk moo xamante ni mm. loo loolu la si am parce que ñun Sénégal comme li nga wax nekk na réew moo xam ne loo def toujours mm-hmm. surtout boo nekkee nit koo xam ne ñëpp ràññee nañ la si si si gox dañ naan mm-hmm. peut-être dafa soxla gox bi wala am na ku muy jàppale mm-hmm. vu que ñuy jëm si ay élection donc loolu du ñàkk nit ñi def ko seen bopp parce que souvent man jaar naa si mais da ngay jigéen mu accoucher mais da nga koy yërëm ordonnance sax du ko mënal boppam man jaanaa Youssou Mbargane def naa fa stage 4 mois mm. mais des yow stagiaire bi sax da ngay da nga koy yërëm da nga koy yërëm de telle sorte que mm. da nga naan kii ani jëkkëram wala ani ay mbokkam des fois pour mu génn sax solo dong sax du ko am mais même temps bu fa war a de couche maanaam temps ba a def boo ko defee pour nga fay salle bi pour génn sa des fois doo ko am wallaahi azim des fois dañuy dem si hôpital parce que dina am yoo xam ne ñoom ñooy gérer cas sociaux mm-hmm. ñooy ñëw des fois rek le cas boobu ki mën a génn doom ji comme li nga wax des fois du am yére sol wala boo yeexee sa soow bu yeexee génn bi ngay jox sa doom sa doo ko am loo mu nekk lu lu doy waar mm-hmm. ak ñi nga xamante ni bu ñu génnee aussi ni leen war a gérer si kër gi loolu tamit sa pose problème des fois mm-hmm. donc suñu gisee genre yu mel nii nga xamante ni ñi ngi apporter di mm-hmm. fay a gane loolu da nga la koy wax yàlla si sa mm-hmm. initiative bi nga nekk ci barke Seydina Mohamed alayhi salaatu mu dem ba génn sax tëngéej mm-hmm. da mën koy dégg si si mais loolu la bay sa wéewu oom la olof wax donc soo demee demee feneen di ko jéggaanu di ko fa defee du safee sa ñi nga dëkkal nañ naa moo fii la dëkk fii la juddoo de pourtant te defaluñ ko donc looy def rek commencé ko ci fi nga nekk macha allah yal na la yàlla jàppale ci barke si voilà merci beaucoup Fatou El c'est bi am na solo lool. ayca Alsace. Euh, xanaa xanaa di jaajëfal le PDG. Mhm. C'est quelqu'un qui a ki a marqué sa localité de par ses actions. Je pense que Bébé Lané nekk na loo xamante ne lu am solo la parce que des fois dañ koy séentoo feneen. donc fii la war a gën a am te Tëngéej aujourd'hui c'est une grande ville. donc lépp loo xamante ne lu baax la luy amee feneen rek. je pense que war na fii mën a am. donc di la encourager rek euh, di wax ne aussi nit ki boo def lu baax moom da ngay xool sa kanam. da mhm. xool sa kanam nga dox. que dans la ça c'est vrai nekk si àdduna boo xam ne am na ñoo xam ne demuñu du ñu bàyyi ku dem. Mhm. jéemuñu du ñu bàyyi ku jéem. donc euh, nit ku ne euh, dafa am dafa am lu ko façonné. parce que nit ki fi nga juddoo ak fi nga màggee mhm. loolu dalay topp donc euh, euh, di la encourager di wax ni c'est pas facile te yaa ngi ne créer Kër Ndanaan TV ay nit di ci liggéey bu la neexoon loolu nga jël def ko feneen mhm. donc si la lay ëpp kii mais euh, passion bi nga am ci média passion bi nga am ci développement moo tax nga def ko mhm. donc contribution boobu rek lañu amoon di def di la laaj aussi par rapport ak Kër Ndanaan TV comment comment c'est arrivé l'idée de créer KNTV euh, KNTV c'est l'occasion nag xam naa bu ñu rëccee fii moom. ak quels sont les projets. waaw question boobu moom ah. duñ ko ko mën a laaj. <laughs> non non seulement l'idée mais le nom. <laughs> ay nit dañ ma koy laaj fu ne. Mhm. lan moo tax. kër daanaka ñuy wax ay buzz nangam buzz ay lii rio lii yow nga kër daanaka ma ne ko non loolu histoire bu yàgg la quoi <laughs> vraiment histoire boobu. Mhm. Euh, bëggu bëggatu ba sax dafa yàgg quoi. dafa yàgg parce que si marché bi laa nekkoon. di jaay mhm. euh, marché mardi bi muy nekk fii nii. fi laa doon nekk di ànd ak sama yaay di jaay fukki jaay. mooy temps yi ñuy tàcc tàcc noonu di taasu teg bali. voilà. Mm-hmm. ci tàcc ba nga bokkoon. waaw si tàcc ba laa bokkoon. après ma koy jël euh, pour wax la des fois jur dafa am solo si doom. Mm-hmm. man bi may jël keesu rajo laa doon yor chaque jour bu ko solee cinq mille. ma dugg marché bi ma koy jaayal boobu ma koy jaay BMW lay laa yoroon te maa ko moom fi laa koy gaa dugg jaayal kara di si marché bi génn mu am fii place jox ma ko ma di fi jaay cosmétique te ngeen fii amul ku léegi nag dafa am benn femme dafa ma yeboon <laughs> mu nga comme ni ngay solo ma ma ñëwee da ngeen ma jaar da ngay italien ma ñëw sol benn jour. Euh, benn boroode sa jamono yooyu nag. <laughs> mu romb rek ni ma yebee ni rek waa kii di jaar ndaanaan. <laughs> loolu moo indi nit ñi dañ foo maaglo loolu moo. indi tur bi. ndaanaan bi fa la jógee moo indi tur bi boo yàlla dogal ñu ubbi boutique bee tuddee ko kër ndaanaan. Hmm. ak télé bi aussi. waaw télé bi ñëw. Hmm. bon bi muy ñëw aussi. c'était pas pour affaire registre de commerce ak ay NINEA mu bañ nekk ñaari kii comme dañ ko defoon benn groupe boo xam ne mën nga si def lu nekk ñu dugal ñu def ko si. après def ko KNTV loolu moom mooy. kii mais des fois nag toujours nit laaj la lu tax loolu. lu tax mm-hmm. ndaanaan. njaag ndaanaan ndaanaan la moo tax moo tax lépp ndaanaan la donc ndaanaan bi moo xawoon na jaaxal ñu bëri ñu naan. Euh, lu aussi ma <laughs> bi. Euh. des fois comme ni ñuy wax dañ naan lu baax boo koy def jarul di fësal. mais benn côté baax na benn côté baaxul. Mm-hmm. parce que am na ñoo xamante ni. Mhm. nit moo leen di inciter pour ñoom ñu commencer def lu baax. d'accord beneen côté bi kaye yi ma doon joxe dama daje benn tubaab Milan. Mhm. mu ne ma man damay bëgg di dimbali ay nit Afrique mais dama daan am ay kaye parce que moom mooy liggéey kaye yi. Mhm. Euh, dama ko daan jox ay nit. mais bu ma leen ko joxee bu ñu demee Sénégal dañuy jaay kaye yi. duñ ko joxee donc dañ koy jaay billaay. Abdou euh, Cheikh Omar moom aussi maa nuyu. woo ma ni ma kaye yi daal dama bëgg chaque trois mois ma dajalee la. deux mille cahiers donc année bi ça te fait plus de 5000 6000 7000 cahiers. mu ne ko d' accord mu ne mais gars yi dañ ko daan jaay mais yow ni ma la gisee nii xam naa ni ku am fulla nga. Mhm. gën a ma gën a liggéey yaakaaruma ko si yow. ma ne ko incha allah dinaa ko joxe. cahiers yi donc maam Abdou Aziz baax la tudd. moom lañ bind si protège yi. Ah, donc ku mel noonu bu la defee loolu boo koy joxe da nga koy médiatiser mu gis kees yi nga teg nga joxe ko mu xam ne li mu la jox joxe nga ko mais doo ñëw rek jóge Sénégal demaat ne ko joxe naa ko xale yi gërëm nañu noonu te gisul dara <laughs> fii adduna bi ñu toll nii mm-hmm. lépp lu ñu def war na am preuve euh, mm-hmm. Mm-hmm. te sëñ Fallou moo doon wax vidéo tuddul vidéo weddi woo la tudd weddi woo c'est vrai ah. ndaxte bu la boo ñëwee tegal ko kees yi nombre de kees bi ñu la jox ñu compter ko mu gis ko nga la jox xale yi kooku boo ko nee joxee naa ko daf koy gëm donc côté boobu moo indi médiatisation mais pas parce que dañu bëgg joxe kay yi pour nit ñu gis ñu wala dara mm. yooyu sax je devais même pas l'expliquer mais di ko wax ñenn parce bu ñu la gisee nga joxe fii média médiatiser indi fii caméra yi nigi mm. bon ñenn ñi neneen la xalaatee toujours côté politique bi dañuy jàpp ni yow da nga am looy bëgg côté négatif rek la ñuy xool côté négatif jamais si côté positif bi voilà mu nekk lu am am solo voilà nee leen euh, c'était notre PDG donc c'est notre PDG sax moom moo nekkoon ci émission Café Show moom laa dalaloon si deuxième partie bi ñu doon waxtaane li nga xamante ne moom mooy euh, troisième édition bébé de l'année bi nga xam ne da koy def fii à Rufisque voilà di la jaajëfal encore une fois PDG di la jaajëfal bu baax di ñaanal di la ñaanal comme d'habitude mm. Mm. Ah, mm. naa leen man chaque fois nga xam ne daf la bu ko xeeb da nga koy ñaanal yokkute ndax bu yokkoo rek yow mi ci ginnaawam sa yokkute da ciy daal di taxaw te a mm-hmm. que ni incha allah yaakaar nañ ko yàlla bu yaakaar tas yàlla mun nga ko def te yàlla la yàlla gën a doole la ah. yàlla yokk xéewal yi yokk sutura bi yokk wërsëg bi voilà ba lépp bépp projet boo teg loxo suñ borom daal di la ci jàppale tegal la ci loxo lépp loo dugg suñ borom yombalal la ko voilà mi ngi noonu ayca ma bàyyi rek nga joxe sa mot de fin waaw mot de la fin bi mooy di di leen wax ni leen man mënuma dara. Mhm. lépp lu fi dox fii yéen la. Mhm. bon dama leen di encourager nag bu baax parce que euh, man damay jot ay retour mhm. man dëkk bi fi laa dëkk lu fi xew. balaa ngoon ma yëkk. dëgg mais invité bu fi ñëw. bu demee lu may njëkk a wax équipe bi sa équipe bi fa nekk. ndeysaan. wala yàlla xam na ko. ah je je du ma wax nit lu ko lu ko neex. invité bu fi ñëw ni ma sa booy cohésion bi ñu am. Mhm. entente bi ñu am rek loolu moom moo njëkk neex foofu donc loolu. c'est euh, à saluer quoi. te aussi ñuy jéem a tàmm di am di am kóllëre di am ngor man ñi ma doon àndal démb ak bërki démb ñoom laay àndal télé bi ñu fi nekkoon démb ak bërki démb yëpp ñoom ñoo fi continuer nekk. Mhm. ku fi jógee yaa fi jëlee sa bopp. donc yooyu ñu di ko prôné di koy mm. ay valeur la yoo xamante ni dañ ko war a jéem a euh, garder. bon di saluer de passage sama sonn. Mm. ajaratu Fama Bey <laughs> ak euh, Pa Alaaji Payu Saaxo sama mm. doom yi. maa leen nuyu. <laughs> ñoom dañuy suivre télé bi. Mm-hmm. madame Diak on te de passage macha allah chaque chaque grand homme il y a une grande dame. moom c' une grande dame macha allah bien fi nga jàpp foofu la de góor borom kër moom da nekk ci ginnaawam di ko dooleel rek te macha yaa ngi koy dooleel bu baax baax. ñu la ciy jàppale te du feeñ mm-hmm. aussi quoi. waaw moom du feeñ maanaam moom dafa nekk ci ci ombre bi la bokk bokk <laughs> macha ñu ngi koy saluer Euh, créer d'autres projet incha allah bon sur le surtout sur le côté production. Mhm. am na yu ñuy préparer xam ngeen si dara donc ñu ñaan yàlla yàlla dimbali ñu li ñuy sumb suñu borom motal ñu ko. loxo amiin yaa rabbi waaw ñu leen ñaanal yàlla. Mhm. ñu dégg leen fu ne. amiin dégg bi sax commencé na am ndax liñ may woo rek. di eh, ma wax jox ma numéro jox ma numéro diw damay xam ni bon c'est du succès quoi succès boobu nag yàlla nag suñu borom yokk. amiin yaa rabbi amiin yaa nabi Moustapha. amiin yaa rabbi voilà eh, merci beaucoup nos PDG a baax. Aïcha di la jaajëfalaat baax di am mbégte saa su ne di bokk ak yéen mission Café Show mm-hmm. plus dans la chaîne de l'élégance mm-hmm. waaw di nuyu aussi le grand artiste monsieur Chérifou donc hier il était euh, à Niag vraiment def fa def fa mhm. concert bu mag. hier mhm. 25 décembre def fa concert bu mag donc vraiment. 3C euh, yëpp kontaan nañ. avec euh, l'appui des autorités. Mhm. donc di ko jaajëfalaat encore une fois di ko encourager. voilà di nuyu ñëpp di ziar ñëpp. merci beaucoup Alassane ñu jaajëfal bu baax a baax macha allah aja faatu nga tàggatoo rapidement. comme d'habitude Adja Diatou ñu leen di tàggu tàggatoo du tàggu macha allah di leen wax ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci topp bi ngeen ñi topp. sant yàlla la ndax am na ñoo xam ne peut-être lii ñuy am amuñu ko encore une fois di ñaanal PDG si si initiative bi mhm. bébé de l'année bi aussi yàlla teg si loxo bu baax a baax yàlla yeggale may ko mu yeggalee si sagom mu koy def ay at yu baree bari ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku nekk yaa xam ne nekk ci sa xol yal na la ko yàlla may mhm. mu doon gëneel bu ñëwee ci yow mhm. ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf sëñ aussi Père ah. mu nekk mag boo xamante ne mag bu baax la nekk si vraiment Mm-hmm. ay conseils yu utile la ñuy la ñuy indil comme ni mm-hmm. ko monsieur Diack waxee mm-hmm. sànq c'est-à-dire lépp looy liggéey nga am mag bu nekk sa wet des mu di la orienté loolu am na solo te je pense qu'il le fait mm-hmm. avec beaucoup de générosité. incha allah ñu koy jaajëfal bu baax a baax. Aïcha merci beaucoup di amoon mbégte aussi euh, l' émission tire sa fin di amoon mbégte dalal leen fii si seen plateau Café Show nee mu nekk émission matinale bi nga xam ne nee leen damay bëgg café gi di tàng ndax show la wax dama mën a show tàng de nee am émission bi di ànd ak show maanaam di ànd ak ambiance dama koy daal di bëgg day neex lool lool macha allah di jaajëfal sama technicien yi voilà ci côté gontographe ndax mu ngi fii toog tey jaajëfal naa ko ba pare mais comme d'habitude ko ñaanal di ko ñaanal voilà àddina boo fi nekkee di def lu baax nit yi au lieu ñu gis lu baax li mais ci ginnaaw la xool côté négatif donc bul gestu kenn continuer incha yàlla lépp dina baax incha di leen dox dig daje euh, demain incha allah si beneen numéro Café Show Plus KN TV incha allah rabbi